xel yëngu yi nga xam ne dat nañ koy amal ànd ci ak lu toll ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari ndaw yu bàyyeeku ci ñaar fukki mbootaay organisme international bi yënguti ci wàlluk aar li nga xam ne moo di kéew bi gunge nag askan yi nga xam ne dañoo loru ci réchauffement climatique bi. askan yi nga xamante ne ñoom la changement climatique yi impacté ñu may leen chance ba nga xamante ne dinañ wax ba ñëpp dégg leen parce que. constat bi ñu defoon mooy askan yooyu daawuñu waxal fee wax environnement ONG yi ñoo leen di waxal léegi objectif bi ñu am ñun ak projet bi mooy ñooñu noonu nga xam ne mooy askan boobu ñu jox leen kàddu ñu mun a wax. organisation boobee sanc ci Tëngéej di amal benn compétition jongante goo xamante ne daf ko jagleel war taskatu xabaar yi ca la nga xam ni moo ajawoo ci wàllug justice climatique. diggante tey ba le 31 juillet nga xamante ne ku mu neex nga mun a participer ci concours boobu nga xamante ne dinañ ko joxé ci biir août wéru août bi ñuy jëm donc loolu moo nekk lu yees pour ren bi à part ça on va reconduire les mêmes activités mais ci yeneen zone Ambri yi jokk ci Lou, lépp di méttit lu ci wàllu politique yi fii ci suñu day dem bu crise écologique di tolof-tolof ñu am ci wàllu jaww ji ak passe au crible ses activités déroulées avec 227 jeunes issus de 20 associations. L'Organisation internationale de défense et protection de l'environnement accompagne les communautés victimes des conséquences du réchauffement climatique. En lien avec les questions du climat, les populations n'étaient pas visibles, n'étaient pas audibles sur les questions de revendication et en ce qui concerne les conséquences qu'elles vivent sur les questions de réchauffement climatique. Donc on s'est dit qu'il était important de mettre en place un projet qui allait les accompagner, les capaciter, les former, mais aussi euh, les outiller pour qu'elles puissent eux-mêmes amplifier leur propre récit et se faire entendre. L'organisation basée à Rufisque met en compétition des professionnels des médias sur des questions liées à la justice climatique. La meilleure façon pour nous de travailler avec les médias, c'est naturellement de mettre en place des bourses d'aide à la production, mais aussi de lancer des concours de création de contenu sur le secteur de l'environnement, chose que nous venons de faire aujourd'hui les questions de réchauffement climatique parce qu'aujourd'hui, nous vivons une crise qui est très profonde. C'est la crise de l'urgence climatique qui mériterait d'être entendue. Les membres de Galab se désolent des tensions politiques au Sénégal qui, disent-ils, occultent les crises écologiques.